mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam boobu di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen gisee jataay bii nag ñu defee ko fii ci kër alxaaji Baba Fall mum maam muttu fa mu maam dànka li ko waral mooy askanu gambul wi nga xamante ni dañuy waaj bis bi nga xamante ni mooy bi su tuuru famille boo xamante ni dañ ko bëgg a daje waxtaane sunu famille waxtaane sunu mbokk moo tax ñu déparé ko fii ci kër alxaaji maam baaba mi nga xamante ni moom moo fi des ci njabootug maam muttu fa ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral cëram ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ñi teew bi jotaay bi nag Pape Fall di Pape Alioune Fall di doomu Pape Ibra Fall moom maam ale Samba jigéen ak Ibrahima Fall moom alaaji Mortala Fall moom maam alaaji Samba ale Samba jigéen ak njabootug maam baaba gépp Assane Thiaw mi ngi nii toog ak Moustapha Fall ak Abdou Guèye dañoo fekk oustaz génn nag waaye ñu ngi leen di xamal ni daal daje famille bi nga xamante ni moom la ñuy waaj te jàpp ko le 7 janvier incha allah war koo defee ca Grand Thiès kër Alhaji Mortala Fall loolu moo waral jotaay bii kon nag ñu jox Ibrahima Fall kàddu gi mu woo ñi nga xamante ni ñoo ci bokk ñëpp te war cee ñëw ñuy ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yéen waa mbokki Gambul ñoo ngi leen di nuyu di sof ci suñuy kàddu nag ni Serigne Baye Mbeng Fall wax muy daje bu am solo boobu nga xamante ni askanu Gambul yëpp ñoo àndandoo di ko woote jëmale ko ci kan ngir doxal sunu mbokk ak jokk-jokk goo xamante ni li fi mag ñi bàyyi woon yëpp ñu jiim koo dundal kenn ku ne xam na ni askanu Gambul day askan la woo xamante ni wu rëy la wu riis la te wu am teraanga te ñu bari xam-xam lañu kon bu yàlla dogalee suñuy waaju daan ànd daan ko doxal ba ñoom te yàlla dogal néewtuñ fi ñun gone yi fi des war noonu mën a booloo doon benn say ngir dundal kóllëre googee mu mel ni nag tey jii dañoo teew ci kër jëmm ju tedd joo xamante ni nii kenn du ko laaj teeti ci askan wi ndax ak mbaaxam ak bëgg lu baaxam ak jokk mbokk gi ak toppatoo lépp loo xamante ni moo jëm ci askan wi ak disponibilité am ci lépp loo xamante ni moo jëm ci famille bi muy Alaaji Sëriñ Maam Baaba Fall mi nga xamante ni moo nekk ci cees di sunu maam ñun ñëpp di bàyyi ci ñi ci des kon nga xamante ni kon nag bu buñ fi dajee war na noo xam ni kon lii lu ñor la ndax moom day képp ku ko seen muy dem xamal ni mi ngi ci lu baax ak liggéeyal yàlla ak toppatoo ak bokk mel ni nag tey jii ki nekk sama wet di Pape Aline Fall mun suñ Pape Ibra Fall nekkal fi gépp nekk ci ginnaaw Baye Dame Fall mi nga xamante ni mooy magam ki nekk ci sama côté bii di waa kër maam Baba Fall ñoom Baye Mbengue lim na leen du ma ci dellusiwaat mu ngi mel ni ñu ngi commencé woote bi ci waa Tëngéej waa Tëngéej ci njiital sunu Baye Mbóot Fall ak Maxari Fall ñoo ngi leen di woo ak waa Tëngéej gépp dem jàll dakaar ci njiital suñu waa kër maam Xaar Fall ci suñu papa Assane Fall ak ñi nga xamante ni mooy Baye Dame Fall ñoom ñu nekk fa ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp bu nu paree ñu dem Louga Louga nag buñ ko tuddee dana yaatu lool ndax mbokk gi dafaa xaw a yaatu mu mel ni buñ demee ba ci njang dañuy wax grand Baye Dame Fall ak Mama Fall ak Ousmane Fall ñoom de ñoom leen bàyyee foofu ak jigéen ñi sàmba jigéen jiite leen ñu àndandoo ñoom ñëpp waajal bés bi te wax seen wuy si bu demee kër seen Louga dañ fay waay Alaaji Mandiaye Guèye ak waa këram Moustapha Diop moom suñu paa Cheikh Ngabou Diop ak suñu bàjjen Ami faal ak waa këram allah soxna Safi sek mi nga xamante ni nii mooy doomu Mame Birane sek mi nga xamante ni ak njabootam gépp ñu ngi koy woo ak mbooleem képp koo xamante ni yaa ngi Louga rek ñu ngi lay woo mu mel ni suñ tuddee ñooñu rek tudd nañ ñëpp ak waa kër Baye Serigne Dogal Fall ci njiital Lamine Fall ak Pape ak yaa Njéeme leen di woo ñoom ñëpp bàyyiwunu kenn ñu jugee foofu nag dem euh, Dagana ñoo ngi fay woo mboolem képp ku mbokk askanu Gambul rek ñu ngi lay woo ak Saanaar ak Rissa Tool bàyyiwunu kenn daal di dugg nag Daaru Muxti Daaru Muxti suñu waa kër Baye ya nekk yëpp di waa kër Baye Moussa Fall ci Baara Fall mi nga xamante ni kenn ku ne xam na pas-pasam ak taxawaayam ci njaboot gi ñu ngi koy woo ak waa Daaru Musti gépp bàyyiwunu kenn bu nu duggee Touba képp ku fa nekk nekk askanu Gambul muy tuba ak Mbàkke ci waa kër Baye maam Ibra Demba Fall ña fa nekk nag di ñoom El Hadj ak mboolem njabootu maam Ibra Demba gépp ñu ngi leen di wo ak sët ya ak doom ya ak sëtaat yi bàyyiwunu kenn kon daal sëñ soxna waa waa réew mi woote baa ngi noonu waa Gambul ñoo woote waa Gambul bu nu wootee dajab famille alxuraan jaamu yàlla zikar berne doxal seenu mbokk ndax ñoom loolu rek la ñu xam ñu ngi woo ñëpp di ñaan yàlla yóbbu na ci ak jàmm muy le 7 janvier 2024 fii nga xamante ni ci Thiès ci Grand Thiès ci kër Serigne Mor Talla Fall mi nga xamante ne nii moom de kenn ku ne xam na pas-pasam ak taxawaayam ak bëgg mbokk ak jokk ko kon ñi ngi leen di xaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum yéen waa Guemboul Fall maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa san di leen woo ci daja famille bi ñuy def le 7 janvier ci kër Baye Mor Talla Fall ci turu maam Baba Fall woote baa ngi noonu yéen waa Guemboul jigéen ñëpp képp ko dégg rek. da nga xam ne lii mooy sa woote. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax te di leen baalu xaq te di leen baal euh, ku dégg woote bi nag xam ne waa Gëmbul Faal ñoo woote waa Gëmbul Faal nag bu ñu wootee ñëpp xam na ni ñoom ñu yàgg def ci wàllu waar ci wàllu moo xam tour de famille wala askan wala yu demee noonu ku xam Gëmbul Faal xam ni ñoom yàgg nan dox ci wàllu mbokk li nga xamante ni mooy annonce bi nag moom mooy danoo am tour de famille. tour de famille boo xam ne dañoo bëgg képp koo xamante ni bokkoon nga ci gëmbul faal daan ñëw tour de famille wala daan woon ñëw dañoo bëgg bi yoon nga ñëw boo ñëwee ci tour de famille bi mu nekk le 7 janvier incha allah kër Baye Mortala Fall fii ci Grand képp ku ñëw di nga gis tour de famille boo xamante ni tour de famille bi bu nu xëyee dana jàng alxuraanul karim bëccëg gi danañ def waxtaanu diine képp ku am masala wala jaaxal ci diine boo ñëwee danañ la ko leeralal ngoon gi buñ toogee ñëpp toog nag bu boobaa nag kenn ku ca nekk famille ba nga bokk ñu wax la diw diw mooy sa maam diw mooy sa maam ba ñëpp xamante incha allah tour boobu na la 7 janvier la képp koo xamante ni pare nga bu ñëw dinaa joxe ñetti numéro yoo xamante ni képp koo xamante da ngaa bëgg ñëw wala nga bëgg bokk ci tour de famille bi ñun ñetti numéro yi boo ci wootee incha allah dana la te ci yoon ba nga egsi ki ci njëkk mu ngi tudd Baye Mbeng faal numéro mu ngi tudd 502 77 502 36 92 ki ci topp Ibrahima 77. 722 90 47 ki ci topp mu muy Assane Fall di doom Baye Motala Fall 77 018 04 34 kon képp ku dégg lii rek mooy sa woote kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu góor gi Baba Fall mi nga xamante ni moom mooy njiitu Gëmbul Fall yal na ko yàlla may fan wu gudd yàlla may ko wér yàlla may ko wérle mu laawaale ñun waa famille Gëmbul Fall yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen a ko dégg Ibrahima Fall leeral na lu bari. saraana lu bari loo xamante ni ku ko dégg di nga xam ne kii matal na Assane Thiaw di doomu maam Baba Fall moom it dégg ngeen ni mu waxee leer na naa ñu kon daal woote bi mooy loolu askanu gambul ñoo woote bu nu wootee nag defuñu woote wuñu lu dul ndono li nga xam ne moom la sunu maam ya yoroon rafetal ko yor ko mu nekk ci seeni loxo ba ñu teg ko ci sunuy loxo ñu fas cee góor góorgóorlu ba bu dara yàqoo ci sunuy loxo kon ñi ngi leen di woo di ñaan yàlla niñ ko waxee yàlla nañ yàlla may ñu egg ci alhamdulilahi rabil alamin jeexal ko ci jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jox alhaaji baaba fall mi nga xamante ni fii ñu toll ku fi dul ku fi dul sa maamit di sa papa mbaa muy sa ndijaay kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi mu ñaanal ñu tëjal ñu sunu jotaay bi te ñaan yàlla ñu fekke kook jàmm bis ni rabbina wa jeex moustapha sallallahu alayhi rabbana kama stafa amin